يسر لي ميسر العسير ما اختاره لي بلا مسير يسر لي ميسر العسير ما اختاره لي بلا مسير ولا اللعين لسواي مدبرا بما على زهري يدوم دبرا ما وجه المكاري ليا باخ حبا بذكري وحوليا حنح رديت وحو عني رادي بلا مكارح ولا أمراد رد لخير جاتي شيطانا من طيب الممر والأوتانا فر لغير جعتي لعين يسوقه لغيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كليتي سفر وسفت نبي توفيق هاد خاده الإلهام قد أبدى لي مالح بحام بدت لي اليوم بربي الخيم أعاذني ممن خلوا وخيبا لا يتوجه لنحوي متعب عني مع المكارح والتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد الخديم قد سبت شكر لي ميسر العسير ما اختاره لي بلا مسير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi bokki taalibe yi ñuy seetaan ak di déglu ginnaaw bi nga xamee ne eh, teru nañ gan gu màgg gan gu tedd gan gu sell di Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni nii fii ci kër seex Ganna Makhtar ñu yendoo ko Euh, Cheikh Gànna Maxtaar it lépp lu mu xam ci teraanga ci lu baax mu defal ko ko ba sëriñ bi it mboolem mbokki taalibe yi fi daje yëpp ñëw amal seeni siyaar ci sëriñ Ahmadou Kara Mbacké nii bi ñu noppee it sëriñ Modou Kara génn na ci baas bi yëkkati fi ay kàddu seex Gànna yëkkati ay kàddu ak Cheikh Ahmadou Bachir Mbacké sëriñ Cheikh Thioro waaye xam gu ñu xam diggante Cheikh Gànna ak sopp yi nga xam ne dafa ànd ak ñoom tollu sëriñ tubaab bi seex Mat Bamba lépp lu mu mas a nekk lépp lu mu nekk ànd koog ñoom fu mu jëm jëm fa ak ñoom moo waral mu na leen yéen bis bi yéene borom te am naa jataay boo xam ne am naa ko yéene ak yéen ñu bokk toog ba ngeen xam ne yëg naa leen ci sama biir ngeen bokk ndax yéen ñëpp ñëw ngeen te ñu ñëwut ñëwaale ngeen leen yendu fi lu war ci bis bi ak lu war ci ab soppe ci ci ci kam sopp def ngeen ko waaye su ma sañoon dañuy bokk ab jataay man ak yéen mais yëkkati kàddu sant ñoom it euh, muy euh, groupe WhatsApp bi nga xam ne Euh, dañ ko tudde fédération léegi ndax li tax mu tudde fédération dafa nekkoon benn groupe wala benn daara léegi nag mu nekk ay daara euh, Cheikh Ganna waxoon ne su ma sañoon dangeen di fédération bu ngeen defee fédération ngeen jël sëñ Ousmane Kaman mu nekk jawriñ ji nekk président fédération bi jiite mbooloo mi ngeen xool ñi ngeen ñeneen ñi nga xam ne dañoo jiite ay groupe WhatsApp ngeen jox leen ay pasu ci biir liggéey bi ñu jël sëñ maam Cheikh Fall mi def ko vice président toftal ko ci Cheikh ci sëñ Ousmane Kaman jël ajaar soxna soo Soda Sarr mais def ko mu nekk jëwriñu soxna yi ci fédération soppe sëñ Gànna yi loolu moo waral tey ñoom ñii fi teew mel na ne mbooleem juróomi groupe yi nga xam ne groupe bu ci nekk mi ngi jël deux cent nangam personnes euh, mbo ñii fi teew teewal nañ fi mbooloom mi ndax sëriñ na jëlul téléphone woo kenn ne leen ni ngeen ñëw waaye dara mënta dugg si dara mën mënuma ko yëg ci sama jëmm te jégu leen ko ndax yéenay man maa yéen sëñ Modou Kara Noreyni daf may gane si altine ngan gi it ma ko ci rajo yëgloo ma ko ci télé wootewu ma ko ci kenn da gan moom ku muy gan si da ko teeru teral ko ñoom it ñu ànd ñii ñëw teewaay la ñëw ndax bu sëñ Ousmane Kama mi président fédération bi ñëwee mel na ne kon mbooleem fédération bi ñëpp ñëw nañ sëñ maam Cheikh Fall mi topp ci moom bu ñëwee mel na fédération bi yëpp ñëw nañ sëñ Modou Diagne moom it ñëw na ànd ak ay nit ak ajaaratu soxna Soda Sarr ak soxna yi nga xam ne ñoo nekk ci suñu ginnaaw nga xam ne sëñ Ousmane dana ñëw ci ñoom ñoom ñëpp ñëw teewal fi soxna yi ak soxna soxna euh, Awa Mbay ak soxna Fat Caam Gànna ak soxna soxna Nday Yàdd di soxna sëñ euh, sëñ Modou sëñ Cheikh Ndigal Fall ñu teew fi teewal fi mbooleem ñi nga xamante ni bii ñooy soxna yi nga xam ne ñoo ne ci biir liggéey bi su ko defee dañuy yëkkati suñu kàddu nag jox sëñ maam Cheikh Fall mi nekk vice président fédération bi mu wax ci turu fédération bi su noppee daana jox euh, euh, sëñ Ousmane Kama moom mi nga xam ne mooy jëwriñu fédération bi mu yëkkati ay kàddoom bu noppee ñu jox soxna Soda Sarr mi nga xam ne moo jiite soxna yi xam naa kàddu gu ci dañ koy tënk suñ noppee nag jox Cheikh Ganna mu yëkkati ay kàddu santam yëkkati nañ dajal nañ ay addiye yu bari li bis bi xat-xat ndax fexe fexe nañ ba groupe bu ci nekk ka ci bokk te sopp sañ Ganna am nga carte woo xam ne foo dem ci adduna bi boo ko génnee ñu xam ne yow mi sopp sañ Ganna Messere ko nos ba boo ci dem benn bu ci nekk am na koo xam ne tey boo ko fëggoon wala sañ fenn bu ñëwee nuyoo ne man groupe sangam laa génne bu génnee carte rek nga xam ne kii béréb sangam la bokk te loolu àll bi ñuy dem fu na ci xam nañ ko ci léeg-léeg dem ci béréb bu yàggu rek bi ñu demee fii ci côté Fatick na koo xam ne nuyoo naa ñun waaye carte waa ma xamal ne euh, la bokk ndax daa nuyoo man jàmmante ma nuyoo sëñ Gana ma nappi daa may won won fata bi ma daal di xëccaat ko mu ñëw mu nuyoo ak sëñ Gana nekk kii rek nekk ci soppe la bokk am na ci carte de membre yi sax loolu moo war doon kon wax dëgg la ci yow mooy fu ñu dem da nit ñi fépp ngay fekk nit ñi ngir nga ràññi leen xam leen boo amee carte bi ku la gis xam ne yow mi ci biir liggéey bi nga bokk biir liggéey bi nag mooy soppe yi am na ñoo xam ne nag xaj na mën nañoo ñàkk ami carte ndax mën nañoo ñàkk bokk nos da nga leen xam ba doo leen jaawale ak ñi sunu suut donte ne ñëpp a bokk bëgg bëgg-bëgg ñëpp a sopp sëñ Gana ànd ak moom liggéey bi waaye nag du ñàkk ñoo xamante ne bii danañ nekk ci béréb di fa daje ngir gën koo jàppale gën koo xalaat da ci toolu sëñ Tuubaa bi kon sëñ maam Cheikh Fall auzu billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa mawlana muhammadil makin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax di sant yàlla nag bu baax di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax jërëjëf xaadimu rasool waaye nag jaroo lakk maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridin nuy am mbégte bu baax ak kontaante ci jataay bu tedd bi nga xam ni moom lañ teew muy jataay boo xam ni jataay bu am solo la ñu daje fi ngir fas yéene yëkkati ay kàddu yoo xam ni mi ngi jëm ci liggéey bi nga xam ni moom lañ bokk muy soppe alxaaji Gana Messere Maxtaar muy liggéey bu am solo boo xam ne nag ñu yëkkati suñu kàddu ci turu fédération bi nga xam ni moo lëkkale mboolem groupe yi nga xam ni ñoo aju ci liggéey bi nga xam ni moom la ñuy liggéeyal Sëñ Tuubaa loolu nag di lu am solo di loo xam ne lu mat a bàyyi xel la ndax waxtu nekk ñu ngi koy saytu waaye waxtu nekk ñu ngi ci dox doxin woo xam ni ngir bëgg liggéey bii nga xam ni moom lañ ànd ak alxaaji Gana Messere Maxtaar mu doon liggéey boo xam ni lépp dañ koy teg ci yoon waaye lépp dañ koy teg fa mu war a tege fédération bii nga xam ni nag moom la sunu borom dogal nu taxawal ko nga xam ni moo ŋànk liggéey bi noo ngi leen di sant bu baax a baax ci turu jëwriñ ji nga xam ni mooy sëriñ Ousmane Kama mi nga xam ni moom la alxaaji Gana Messere Maxtaar jiital ci liggéey bi ñu ci taxaw taxawaay bu am solo boo xam ni mbooleem loo xam ni luy jëm ci liggéey bi la rek ñu ngi koy taxawee taxawaay am solo loolu nag waxtu wu nekk dañ koy fàttali ndax daara yi nga xam ni moom la sunu borom dogal ñun ñëpp ñu bokk ko daara yooyu daara yu am solo la yoo xam ni lépp loo xam ne mu ngi fay tàbbi rek mu ngi jaar ci liggéey boobu nga xam ni ñi nga xam ne ñoo ŋànk fédération boobu fa lañ koy jaarale loolu nag di lu am solo loo xam ni eh, waxtu wu nekk dañ koy fàttali sëñ Ousmane nag mi nga xam ni moom la suñu borom dogal mu ne fa ak sëriñ Mouhamadul Muxtaar Diop mi nga xam ni ñoom la ñu sëñ gànna booleel ñu koy taxaw taxawaay yoo xam ne yu am solo la yoo xam ni waxtu wu nekk lépp lu ñu ci def ñu ngi ciy waxtaan waaye lépp lu ñu ci defit ñu ngi xool luy jëmale liggéey bi kanam waaye ñu ngi xool lépp loo xam ne bu ñu ko defee liggéey bi nga xam ni moom lañ fas yéene liggéey sëñ Tuubaa danañ ko mën a àggale ca kaw loolu nag di lu am solo loo xam ni ñoo ngi la koy seeral bu baax di la xamal ni waxtu wu nekk lépp luñ xam ni buñ ko defee liggéey bii dana jëm ca kanam ñu ngi koy def ndax liggéey sëñ Tuubaa la ndax yow jenn it rek nga am mooy liggéeyal sëñ Tuubaa te liggéey sëñ Tuubaa boobu ngay def moom mooy li nga xam ni moom la ñëpp war a bàyyi xel ndax mbooloo mi nga xam ni ñoom la yàlla dogal ñoom ñëpp ñu topp la topp gën la topp sëñ bi rek nu topp la te yow itamit dëggal gi nga xam ni moom nga dëggal ci liggéeyal sëriñ bi moo la yóbbu ci tolluwaayu kawe yi moo la yóbbu fi nga nekk ndax dëggal day lu am solo imaamul xasaali waxoon na ci ihyaan ni asidux yu saxmalu na fi shittati maanin nit ki day dëggu ci pas-pasam dëggu ci jëfam dëggu ci lépp lu mën a doon yow nag loolu day loo xam ni lu am solo la te gis nañ ko ci yow fédération boobu nag noo ngi sant bu baax a baax depuis bi ñu ko taxawalee ba tey gis nañ doxin wi ak euh, liggéey bi doxin wi ñu ci doxin muy doxin woo xam ni lépp lu luñ ci bëgg rek ñu ngi ko ci am te dara waralu ko lu dul diisoo guñ diisoo waaye doon guñ doon benn waaye booloo guñ booloo moo nu yóbbu ci tolluwaay boobu kon noo ngi sant bu baax ci taxawaay bu rafet boobu xam naa eh, jëwriñ sëñ Ousmane bu dikkee dana gën a leeral maanaam liggéey bi ni muy doxee waaye daal sant nañ bu baax a baax noo ngi lay seereel ni waxtu wu nekk noo ngi koy taxaw waxtu wu nekk ñoo ngi fexe lépp loo xam ne lu koy jëmale kanam la ñoo ngi ca waaye lépp loo xam ne bu ñu ko defee liggéey bi fan mu àgg fa dana fa àgg ñoo ngi ci jàpp Eh, ci xel ci lépp loo xam ne luñ ci war a jàppale kon sant nañ bu baax noo ngi ñaan sëñ Tuubaa mi nga xam ne daal amuñu lu dul moom yàlla nañu dimbalil boppam ba liñ bëgg lépp nu matale ko ni sëñ Tuubaa bëgg nu mel ko daal yàlla nañ mel noona mooy dëgg-dëgg taalibe yu sëñ bi nangu sunu taalibe ci barke ba rayta nii sirru rasulullahi waxaada laa ilaha illallah barke maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp baabul muridin jërë ngeen jëf aousubillahi min asheytan irajim bismillahi rahmani asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bokki jullit yi bokki taalibe yi waa kër Cheikhul Khadim ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen saare te di leen ndokkeel bu baax a baax di nuyu ak ziyaar bu baax sunu kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoom lañ bokkal liggéey bi ci njiital Serigne Khadim Mbakke ak Cheikh Abdoul Baaxi Mbakke waaye soxna maam Jaara Mbakke Maxtaar waaye di nuyu it alxaaji Gana Messere Maxtaar la bambalog taalibeeb Cheikhul Xadim bi kàkk gi nga xam ne teg na Cheikhul Xadim ca kaw boo xam ne kenn tegu ko fa waral lu lu màgg lii tey mu am ko ci koo xam ne ku jafe la ci jamono koo xam ne kenn la benn doomu aadama képp la muy Cheikh Modou Kara boo ko nee sëñ Modou Kara kenn kooku ngay wax doo wax keneen ku mel ni moom wala ku dend ak moom kon Serigne Gana lii nga am rëy na lool waaye jomb la ndax fi nga teg sëriñ bi ma waral lii ndax lii tëdd mayewu ko mën a wax rek mayewu ko ndimbalal yàlla waaye ndimbalal Cheikhul Khadim nag ak bëggam ak nammam ndax lii tey ku fi ñëw su dee nit nga am nga taw tawféex yàlla dana def nga jàng ci lu baree bari euh, soo jàjjiwutoon war ngaa jàjjiwaat waaye soo sam xel nam nam war nga nam ko waaye su pas-pas su woyofoon war nga góorgóorlu ba sa pas-pas waaye euh, dëgër ndax muy lu ama am solo loo xam ne tey ñun ñi ñëpp kenn ku ne amaat nga beneen niveau boo nekk bu wuteeg bi nga ñëwee bi nga du bi ngay ñëw bi nga nekkoon kon nag Serigne Gana jërëjëf yàlla na sa fan gudd te nga wér ci barkeb Cheikhul Khadim di ziare ka màggal bu baax soxna Soda Sarr muy yaayu daara ji nga xam ne mooy président d'honneur daara yëpp waaye di ko ndokkeel di ko ñaanal fan wu gudd wu ànd ak wér waaye di ko ñaanal soxna yaa Awa Mbay ak yaay Mbakke Fall ñoom ak mbooloo mi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi lépp soxna Awa Boussa seen présidente ak soxna Mbenn Thiaw ñoom ak mbooleem ak soxna Jeefaal ak bokki taalibe yi nga xam ne ñoom lañ bokk liggéey bi yépp ndax ñooñu mënuñ leen a ñàkk bañ a tudd ndax ñu ay jëwriñ lañ liggéey bi dafa yaatu waaye it soxna ummi sàll ñu ngi koy nuyu bu baax moom it waaye di nuyu bu baax sëñ Modou Diagne moom ñëwoon na waaye dafa am di ko wooye léegi waaye sëñ maam seex sekk di jëwrin daara moom ñu ngi koy nuyu bu baax waaye sox sëñ Moustapha Sall Sarr ñu ngi koy nuyu bu baax moom it di njiital jëwrin di daara kon mbokk yi ñoo ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen tatagal te di leen sant bu baax ci seen taxawaay di sant it maam sëñ maam Cheikh Seck sëñ maam Cheikh Fall mii baay góor ci kàddu yu am solo yi waaye taxawaayam waaye pas-pasam ak pëstéefam ak dëggoom nga xam ne liggéey bi bi mu ci ñëwee defaraat na ci lu baree baree baree bari waaye taxawaat na ci bu baax it waaye jox na ko yitte waaye ak bëggam Serigne Touba ak doyloom maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp waaye di sant suñu Mouhamadul Makhtar Ganna nga xam ne moom dafa yàmbaar ndax gis na ni mu taxawee ci biir liggéey bi waxtu wu ne saa su ne ak daara yi fu lu mu bari bari fenn fu ne mu nga fay jokku di fa góorlu boole ko ab liggéeyam ak leneen ak leneen kon ñu ngi koy sant jërëjëf sëriñ Gana say soppe ñoo ñëwoon tey ñoo ñëw ci ànd ak yow bànneex bi ak mbégte mi ak sant gi ci njiital soxna Soda Sarr mii nga xam ne ak yaay Awa Mbay ak soxna Fat Thiam Gana mii dëkk ba Daarul Moxti moom it di jàmbaar ñu ngi koy gërëm bu baax di la sant nag bu baax yow it la bàmbaloog euh, sopp yëpp yóbbante nañ ma ci yow nee nañ sëriñ Gànna jërëjëf yàlla na sëriñ bi dolli laa taxawu waaye guddal sa fon waaye aar la fi saahiran wa ci biir ak biti juróom benn xeble yëpp na la ci aar yaag say soppe ak ku la bëgg ku la bëggul sax na aaroo dégg ndax yow danga war a landi dangay ngay nituk àjjana te ñun ay niti àjjana lañ kon ñun dañoo war di bëgg sëriñ Touba waxtu wu ne war a wér war a am jàmm kon kàddu yi xam naa ne dañ koy tënk rek li ci des ñu jox ko yaay sooda li ci des it boo ñëwee ah, nga sant say say say soppe ndax man lottu naa ci sant soppe yi waaye lépp dañ la koy dellu rek mesere Maxtaar te it sëñ Modou karaa wax nañ ne nañ koy wax seex Gànna te ndigalal ju baax des ci jéggal képp nangu ndigal lool yi ñu jàng xam nañ ko xëy donte suñu xam-xam bëriwut wala kii waaye daal nañ góorlu ci loolu bu baax ci topp gaa yu baax yi ak seen i ndigal euh, ñu tege ci kon nag jërëjëf mesare euh, yaay sooda jërëjëf tubaarkàllaa jërë ngeen jëf bismillaahi barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi mbokki taaliba yi fi nekk yëpp waaye di jiital ci ziar bi nag xalifatul am bi tarixil muridiya di bu baax sëriñ Ganna Messere Maxtaar di ko ñaanal suñu borom sàmm ko te te musal ko ci lépp luy lore te may ko fanu gudd ak wér di ziyaar baax suñu jëwriñu tedd yi di ci jiital sëñ Xaadim Mbàkke sëñ Abdul Baax yi ak soxna maam Jaara Mbàkke Maxtaar di ziyaar baax suñu jëwriñu tedd yi buñ tuddee sëñ Mbàkke Jóob tudd ci sëñ Ousmane Kama sëñ Moodu Maxtaar Jóob ak sëñ maam Cheikh Fall mu yóbbaale ñëpp waaye ni sant bu baax sëñ Gana di ko ñaanal ci taxawaay yi nga xam ne moom lay taxaw ci diine ak lislaam yoonu Cheikhul Khadim ba tax na liggéey bu réy bi muy liggéey moo ko may tey bisa bu réy bi kon ñu ciy santaat sëriñ bi bu baax di ko ñaanal yàlla yegg ni yoon waaye nag may ñëw ci kàddu yi soxna yi nga xam ne ñoom laa jiite di ko jëkke ci fédération yi ak biir soppee sëriñ Gana Messere Makhtar yëpp ñu ñëwoon tey jii ànd ak sëriñ bi bisam bii teeru la ko ganam gu tedd gii nu am mbégte lool di yàlla yàggate sax ci bakkab sëriñ bi maa ngi sant bu baax sama mbokk yi nga xam ne ñoom laa bokk liggéey di sama njaboot yi ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi ñu ngi sant bu baax képp koo xam ne ñëw nga ki ñëwul ñépp am na ñu yéene waaye man teewal naa fi ñëpp muy ku dikk ak ku dikkul ku yéene woon ak ku mënta ñëw yëpp ñëwal naa naa leen di sant di ñaan nag di bëgg rek ci ñaan suñu borom yàggal ànd bi liggéey bi rafet na lool macha allah ñoo ñaan sëriñ bi nangul na ko te tëyal na ko te yóbbul na ko fa làq yeggu ci barkeb sëriñ bi jërë ngeen jëf auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi ñaanal cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba li mu naalal lislaam yëpp màggale ko di ko ñaanal njabootu sëriñ tubaak gi yëpp ak mbooleem kilifa diine yëpp di nuyu bokki soppe yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal jataay bii tàmbale ko ci kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci biir daara ji muy sëriñ Khadim Mbakke Serigne Abdul Baax yi waaye it di soxna maam Jaara di nuyu sëñ Mbakke Diop mi nga xam ne mooy président d'honneur moom it di ko jaajëfal bu baax waaye di jël nuyoo yu sell na di ko teg ci loxoy jëwriñ jii di Serigne Ousmane Kama. mi nga xam ne moom nee na mooy kàkku gu mag bi VIP bu mag bi ñu ngi jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom di ko jaajëfal bu baax ak sëñ maam Cheikh Fall mii mu feggool ak sëñ Mahamadul Makhtar Diop waaye Badiane Soda mii moom it ñu jël nuyoo soxna yëpp ak ñi ma ko seqal teg ko ci loxoom di am mbégte bu baax di dollee sant it ci ànd bi ak liggéey bi xam ngeen ne bis bii niñ ko waxee euh, Cheikh Mahamadul Mbacké Kara Noreyni di fi ñëw moom sañunoo def dara te àndunu ko ak yéen waaye it du ñu leen masa woo mukk ci lu dul sëriñ bi rek ak liggéeyub sëriñ bi waaye fu ñu ci masa dox bu nu gestoo seen nañ leen bu ñu taxawee ak si ngeen ci noonu loolu nag noo ngi nin ko ñaanee ci kanam sëriñ bi rek lañ koy waxee mooy lépp loo xam ne daal sëriñ baa ngi nu ko ciy defal yàlla ñu ko bokk damay wax ne waxtu wu ne ànd neex na waaye ànd ak ay gor ànd ak ñu lay soññi ànd ak ñu lay jàppale te sëriñ Tuubaa rek a tax loolu moo am solo te loolu moo am ci ci ci ànd bi fédération yi nag ni ñu ko waxee euh, liggéeyal Serigne Touba rek a tax ñu di ko woote ndax defe naa liñ sasoo ngir war koo doxal euh, mbooloo rek ko man mooy at mu jot ñu war a siyaare ji Cheikh mun Mountakha te loolu alhamdulilah ñu ngi koy taxawal waaye poroxaan soxna jaara yi maa ngi wax léegi bàjjan soo doon na ko na ngeen gën a soññi waat ndax lim bi ñu jël ci soxna jaara yi di leen fayal dama bëgg nu yokk ko ngir ñu gën a amaat beneen taxawaay loolu it ngir liggéeyal sëriñ bi rek ci moo ci nekk sunu sunu njariñ leneen du sunu njariñ lu dul liggéeyal sëriñ bi kon faw lu gën a jaajuwaat liggéey yi nuy wootal sëriñ bi it fu ko dégg nu jël sunu yëf def ci ndax defe naa loolu rek mooy sunu warteef defe naa yi fi jaaragul lenn lu ci nekk xam nañ ni ci kuréel bi taxawe Touba ca kanam mu siyaaru sëriñ Muntaxa bi waaye muy liggéeyu poroxaan bi nga xam ne dañ caa jël ay soxna jaaratullaay defe naa suñu mii moo yore roche yëpp kon loolu wane na liggéey bi ñu ciy def te kenn xàmmiwut kam koy defal kum doon dañuy jël ay soxna jaara rek fayal leen ngir jëmmi liggéey bi ndax loolu lañ ko war a def Gana Messere du ko ñuy dajalee xaalis di ko jox du sëriñ bu ñuy siyaare du ko ami taalibe am ndonga la bu ànd ak ay bokki taalibeem di liggéeyal Sëriñ Tuubaa kon nag boo leen dajale dajalee addi di ko indi fa dal sama xel rek laay war a ànd ak yéen yóbbu ko fa te moo di delloo ko ci Sëriñ Tuubaa loolu defe naa moo waral lii di sant jëwriñ yi nga xam ne ŋànk nañ fédération bi taxawaay bu bii ñu ci taxawee li ma ci gën a neex mooy bennoo gi ak xaritoo gi ak déggoo gi te loolu mooy solo si kon yàlla na ko Serigne Touba nangul waaye noo ngi sant sëñ Ahmadou Kara ci turu soppe yëpp di ko gërëm ndax li mu def rëy na lool ndax kilifa la te teewul mu bàyyi yitte yëpp ñëw teew si noo ngi koy sant di sant kilifa yi mu àndaloon yëpp jóge Darou Mouhty ñëw fi sant kilifa yi ko fi teew yëpp it Serigne Bachirou Mbacke moom Serigne Cheikh Thioro Serigne Baara Mbacke moom Serigne Baara Cheikh Baara Khourédia ñëpp ak kilifa yi fi nekk Cheikh Moustapha Guèye ak suñ doomi sëriñ ji ak si léegi di sëriñ ji li Mbakke Maxtaar di sant mboolem peres bi ba ñu xëyee ba léegi ñu ngi fi ñoom it àndandoo kook nun ci taxawaay bu rafet bi sant nañ leen gërëm nañ leen sant dëkkandoo yi sant ñëpp sopp daal mënuñu leen a fay Serigne Touba rek moo leen mën a fay waaye la waxoon nañ avancé rek te gën a dox te wane lu wóor a wóor ci barke Xaadim Rasul Cheikh Amadou Makhtar noo ngi gërëm noo ngi sant ndax nos ki mat na te lépp rafet na kon daal ci turu Serigne Ousmane Kama mi nga xam ne mooy jëwriñ ji sant nañ mboolem fédération yëpp sant nañ mboolem soppe yëpp sant nañ mboolem jëwrin yëpp yàlla na yàlla nungu liggéey bi lu nu ci Sëriñ Tuubaa defalit yàlla nañ ko bokk ci barke Xaadim Rasuul kon ñu daal di waajalaat liggéey yi suñu kanam mooy jëf ci sëriñ bi rek te bañ a dàcc te bañ a wàcc bàjjan soodo kon jëf jërë ngeen jëf soxna Faty jërëjëf soxna Aram no Awa Mbay ñoo ngi leen di sant bu baax jërë ngeen jëf kon maa ngi jégglu sant ñëpp gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah doon loo am rek lu mu doon lu ne moo ca war a jëkk moo ca war a jiitu moo ca war a mujj kon maa ngi lay ñaanal yàgg ak wér ci barke Sëriñ شكر لي ميسر العسير ما اختاره لي بلا مسير